jërëjëf Bara cette question yéen souvent waa opposition bi yéen waa Yewwi Askan Wi yéen ñi nga xam ne yéen a xaw a am benn tempérament bu dëgër lañ koy accuser souvent xëy na c'est pour vous faire du tort en 2019 on l'a vu 2024 euh, aussi le débat se pose mais aussi souvent yéen seen levée de fonds yi ngeen di def xëy na mooy tax ba ñu bëri am njort ci ci ci yu mel noonu. Moura man ce débat là je le trouve euh, un peu nga baal ma nag ah. non non non y' a aucun souci. man dama jàpp ne opinion publique sénégalaise bi lañ bëgg divertir. dafa am ñaari agent d' influence yoo xamante ne dañuy liggéeyal nguur gi. Mhm. sentir nañ ne candidature bi ñu porté ñoom doon ko xëcc di ko yëggati candidature bi jógul. en interne ñoom am na ay nit ñu jóg taxaw wax ne candidat bi du waaja. Mhm. mu dem ba am un ministre bu toog ne man du ma ko jàppale. ñu gis ne jéem nañ lu maximum possible pour tenir Ousmane Sonko en dehors du champ politique te Ousmane Sonko mooy imprimer le tempo du champ politique gis nañ ne lancé nañ parrainage si dëkk bi amul affaire effervescence bu bu bu rëy Ousmane Sonko ne joxe na ndigal nañu euh, parrainer la fiche de de de de Bassirou nit ñi gis effervescence bu ñu amul gisul woon ci ci ci parrainage. Mm-hmm. mu am ñaari agent d'influence yoo xamante ne dañu liggéeyal nguur gi ñu ne dañu sànni un os à ronger à l'opinion ñu nekk fi di wax waxu euh, waxu waxu waxu waxu waxu financement occulte ak waxu waxu mbir yoo xamante ne même xale bu ndaw bi soog a judd sax boo ko waxee si wax waxam dina wax ji jubbul am na nit moom boo demee bay sos da ngay sos ay sos yoo xam ne sax xaw na tenir tuuti mais boo nee. Qatar bi nga xamante ne musul déposer dossier pour ut suñu pétrole Sénégal bi ñuy jël ay pétrole nga ne Qatar moo fay benn nit pour bu nit kooku gagné dem négocier pétrole yi parce que am na benn journaliste français bu ne Qatar dafa fay benn nit pour mu dem en mars deux mille vingt et un convaincre murid yi ñu dem jàppale ko boobu sax yow tu es en train de de de de relier une insulte à la à mm-hmm. Euh, nit ñoo xamante ne kenn xamewu leen lu dul lu dul lu dul lu dul liggéey ak jaamu yàlla nga gëm ne ay nit ñu ñu ñu ñuy corrompre la mais mu doon dans ce sens dans ce Sénégal là qu'est-ce nit ñoo xamante ne tekkiwuñu dara Sénégal yëpp xam nañ ne duñ waxkatu dëgg. kan ak kan ngay wax. mais je parle de Madiambal Diagne et de Cheikh Yérim Seck man ragaluma li ma lay wax. Mm-hmm. tekkiwuñu dara Sénégal xam nañ wax nañu dëgg ñooñu ñooñu imposer ñu lan la ñu war a débattre dans l' espace public moi je refuse de débattre de ça mbiru. financement des des partis politiques. mais da nga yàgg Madiambal ak euh, Cheikh Yérim mais c'est un député qui l'a dit comme vient de le dire Souleymane. non mais Mamadou Awa Mamadou Awa koo xam ko jox mandat du peuple mu taxaw ñëpp di ko dégg mu wax ko. c'est assez grave mu leer aussi. Mamadou Awa nous savons tous que Macky Sall a mis à l'Assemblée nationale des gens yoo xamante ne pour de sales besognes pour de saag di xaste ak montrer de de de de de de la violence moo tax mu tëgg leen fa. ce ne sont pas des gens crédibles. ñooñu duñ ma débattre loo man Bara Diouf moom la je refuse de débattre de ça moom la kii li mu koy wax dafa dëgg gis nga politique c'est quelque chose de noble. Mhm. politique ki koy def mooy ki nga xamante ne dafa nangu ne nangu na jël na temps am jël na énergie jël na mbiram ak parti mën bokk mu nekk au mu def ko au profit du peuple. loolu mënuñu ko def ba pare di topp ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara. Ah, mais xam nga baax ñoo xamante ne dañuy sos. ñuy imprimer ñun ban discours lañ war a am wala lañ war a waxtaanee. d'accord xam nga mën financement des partis damay damay simple a wax ci. mbiru euh, financement 20 de dollars yi mais dans le passé Pastef bi nga xam ne yéen a nekkoon en coalition dañu def levée de fonds en une journée on parlait de centaines de millions. mais Sénégal yi ñu ko joxe Kopar Express bi am na ñu ci teg loxo yoo xam ne ñu ngi en prison ba tey. maanaam ay mbir la yoo xam ne aussi. fa foog mu leer. ne serait-ce que pour votre bien à vous. c'est là c'est là on doit euh, mhm. jël exemple le de Kopar Express. sont des jeunes sénégalais ñi nga xam ne dañoo dem am xalaat dans la fintech ce qu'on appelle dans la fintech. Mhm. tey jii la finance numérique. moteur la de développement comme le numéro bi mu nekkee moteur de développement sénégalais yooyu ñu mettre en place un instrument qui s'appelle Copar Express Copar Express bénéficier ay milliers de cas yoo xamante ne de cas sociaux yoo xam ne dañ ma mobilisation sociale rapidement ñu mën leen euh, jàppale ci Copar Express ñooñu nga jàppaleen tëj leen pour lan pour politique pendant que pendant non mais politique la moom du awa ça gars yi ñu ngi si en prison dara du ci génne on sait tous que dara du ci que politique la on sait tous que il fallait il fallait arrêter arrêter arrêter Hannibal Djim utal ko utal ko ay nit ñu ci àndal mais ce jeune là bu mhm. nekk dans le numérique pendant dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne day toog sur internet di saaga ndey pendant que dafa am ñoo xam ne dañuy toog si internet di saaga président di recevoir jeunes yooyu jeune sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi utiliser l'outil numérique pour ñu permettre ñun sénégalais ñu rattraper suñu gap bi nga xamante ne moom lañu am sur les pays développés dans le numérique ñooñu nga def leen en prison c'est ça le Sénégal de Macky Sall ce Sénégal de Macky Sall là loolu mënuñu continuer du ñu wax ay ay parti bu ko financé ak nañ ko y a une loi sur les sur les partis politiques mais qu'on l'applique mm-hmm. c'est simple mm-hmm. sëñ bi et que ces gens-là nous disent comment est-ce que ñoom en 2012 ils ont leur campagne électorale et au moins ils continuent à financer. Ah, boo xamante en 2012 hmm. au pouvoir dafa doon louer siège. fa au pouvoir en quelques mois mu dem jël mu dem hmm. jël mu boo xam ne qui appartient à la société. Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk. ñu ne tabax nañ fa un siège yoo xamante bu gën a gën la si. si Sénégal mais c'est ça gis nga ñooñu. ils ne peuvent pas nous donner des leçons nag man Mamadou Awa man nag bon c'est c'est mon parti pris. man kenn du ma choisiral agenda li may wax. man dama jàpp ne ay nit ñoo xamante ne c'est des mercenaires de la plume ñoo may choisir loo man de des sujets dont je dois discuter Sénégalais yi xaaruñu loolu si ñun ñun nous sommes des acteurs politiques man tey jii ma nga ñëw yaa ngi ma wax ne damaa tardé émission bi ba may ñëw toute la pour ut ay solution pour les Rufisquois Sénégalais yi si yooyu la ñuy xaar si wut ay solution pour la vie chère wax leen lan lañ bëgg pour def Sénégal mais du ñu topp ñaari nit ñoo xamante ne saa bu ñu yeewoo ba waxtaan ñu ne nañ leen woo Sénégalais ñu mobiliser leen en écoutant tout à l'heure euh, Jules il nous a carrément fait savoir que son leader dafa dem liggéey bi mu waree liggéey am xaalis ñëw Sénégal sàmba ne nañu c'est des cadres yoo xam ne ils se cotisent pour financer leur campagne vous l'autre opposition vous MRDS vous euh, PASTEF

ñu seen ñu fen seenu fen huit heures balaa dix heures fen wi ñëpp xam nañ ne aw fen la. c'était quoi déjà. mais l'affaire Tullow Oil. ok ñu dem ut benn turu journaliste boo xam ne dañoo dëpp santam. Mhm. ne moom moo def article bi waa ji génn femme bi génne. Steven Damsen lañ <laughs> bind. la la Dam s'appelle Stéphanie Mat seen xaw ma. voilà c'est ça. dix heures mu génn ne lii li ñu wax dara du si dëgg. mais Mamadou Awa est-ce ñooñu dañu bëgg a ñu ñuy mobiliser si ay mbir yoo xam ne du dëgg à la sol li ñu bëgg. merci loolu nag. loolu nag. Mhm. man moom Baara Diouf Baara Diouf je refuse de participer à ce débat.